jërëjëf Serigne Omar Kanté secrétaire général Daara Majmahun Nurayni kon mbokki taalibe yi lii lañ leen indi loon jëlee ko ci reportage yi nga xamante ni mooy lii ñu amal tey journée porte ouverte bi tey ki doon tëj reportage bi Serigne Omar résumé lépp li nga xamante ni jaar nañ ci commission yi jëlee ko fa. kon bokk taalibe yi ni mu ko leerale sànq liggéey baa ngoog liggéey baa ngi suñu loxo bu jëmee ci kanam ñun la fu liggéey bi toll ñun ñoo ko fa tollale ñu ko sëriñ bi waxe kon na ci ñëpp kenn ku ci nekk jàpp ne yow yaa ki war a doxal liggéey bi kon ñaar yi nga xam muy suñ kanam mu ni mu ko leelee sànq ziar bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal muy samedi le 20 mai ñu war ko amal ci kan ci Serigne Cheikh Saliou nga xam ne dañ ko daan def boole ko ziar général defal xalif général sans borom dogaloon mu fi newoon ci yeneen i barab ba ni na bàyyi ba jege si ba sowu yi su ko defee ñu mën ko faa fekk ngir mu gën a taw feexe kon loolu ñëw na nag ñu ñëpp nañ ko fànnawoo ni ñu ko àndee woon dem ci Serigne Mountakha nañ ko defee noonu dem siyaare ji Serigne Cheikh lañ jooj sax lañ nga xam ne mu ngi suñu kanam bi ci topp mooy ni mu ko leeralee kër sëñ Touba gi nga xam ne nii moom lañ seq bokk muy ba nekk Touba te fan yi jeudi laasa si ñu beneen nekk beneen échéance mu toll ci le 15 mai bii nga xamante ni ci lañ ko war a kii ngir rek jëm ci gani sëñ Touba yi nga xamante ni bisam bu màgg bi nga xam ne amul budul moom di waxoon waxam ju rëy ja képp koo xam ne mbégam sa mbégam bis fi ñëw te na nga koy sant ya yàlla kon nañ jàpp ni lépp luñ cee def ñun ci màggal gi la ñuy dara dara taxul ñu jëru di ci di ci farlu ngir gani sëñ yi nga xamante ni buñ ñëwee ñu mën fi leen dugal rawatina fii nga xam ni fi la màggal Tuubaa toll muy jamonoy nawet nga xam ni daaw gis nañu lañ la ñu fa dal ci yenn commission yi ci waa waañ taw ba mu fa taw kon loolu jàpp nañu kenn ku teen si ñun boo amoon sa kër di dalal ay gan boo sañoon boo sañoon dala leen dalal daal boo xamante ni ak lu mën a wàcc ci taw ak intempérie yu mën a am boo boobaa bu ñu doon ci mucc kon nag jàpp naa ni yéen a jooju ak yitte jooju koy am am am suñu makkaani bopp yaakaar naa kër kenn ku ne si ñun da jàpp naa ne kenn ku ci nekk yéen a jooju sabab du ko faw ko lañ war a am ci lii buñ ko tegee foofu rek fépp fu diwli woote liggéey bi dinañ ko fa fekk kon loolu mooy kàddu yi nga xamante nii moom la le secrétaire général suñu Omar Kanté doon yóbbante mbokk taalibe yi nga xam ne ñi ngi ñu suivi ci DMN TV bi di dégg suñuy kàddu wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Saliou Mbacke